xam nga doctrine bi ngeen teg bokk na ci li indi l'incident de l'Assemblée nationale je m'explique mhm. parce que nga nekk député nga nekk à l'Assemblée nationale le lieu par excellence du débat politique contradictoire un député et et je ne je ne je pas mhm. le comportement ni l'attitude de la dame mhm. Amy Ndiaye Gniby parce que bu ñu lu ñu nekk nekk assemblée Sénégal dafa am ay sensibilité mhm. nit da koy wormaalal euh, kilifaam. Mhm. et autant je ne je ne bénis pas l'attitude de Amine Ndiaye Gniby par rapport à beaucoup de choses. Mm -hmm. autant je désavoue et en tant que femme je me solidarise de Amine Ndiaye Gniby et je désavoue fortement le comportement des députés du PUR. Mm -hmm. c'est inacceptable au vingt-et-unième siècle. Mm-hmm. que jigéen wax li mu wax neexu la nga mm-hmm. dóor ko mm-hmm. même bu waxuma ëmb sax même bu ëmbul et bi loolu amee en tant que femme intervenant dans le débat public je me suis concerné parce que diggante man ak yow nga nekk góor nga ëpp ma doole ma nekk jigéen on doit dialoguer les na ne doivent pas pleuvoir mais peut-être que doctrine bi ngeen di teg moo tax ba ñu waxee Amy Ndiaye Gniby waxee ni mu waxee les députés ont senti l'obligation de la corriger de la plus forte et de la manière la plus forte et la plus inappropriée. Mmh. Et dans les coulisses, parce que c'est une affaire qui m'a beaucoup intéressé certains ont même dit que dañ leen jox dañ leen jox euh, kii injonction mm-hmm. pour que ñu corriger la dame là et que cette injonction là viendrait de vous. <laughs> Ah, moi j'ai bon dos. <laughs> En réalité je me rends compte <laughs> mais mais lu ma a mën a wax ci loolu c'est qu'en fait ce qui est vraiment bien dommage Sénégal c'est qu'en fait moom la euh, euh, Pape euh, Serigne Pape si Serigne. Pape Malick si doon wax ndem si yàlla si yàlla na ko yàlla dafa doon wax ni Sénégal bu ñu lay tooñ ñëpp dañuy taf seen bët fatt seen i nopp seen nopp. boo fayoo nag ñu takk seeni rajo di wax da wax ne. euh, l'Assemblée, c'est le lieu de, du débat du politique débat politique. contradictoire. Mm -hmm. Des insultes, est-ce que c'est débat le politique C'est inacceptable. Insultes, est-ce que débat le Non. Le président de l'Assemblée nationale qui a le pouvoir de police, depuis des mois, cette dame dit Sagawate, dit Khassate, lui qui était censé incarner, faire appliquer ce, ce, ce pouvoir de police, il refusait. Gis nga nag nit nit rek la yow mën nañ la wax loo xam ne nii mën na la metti contrairement à ce que beaucoup pensent et beaucoup disent la violence verbale est beaucoup plus inouïe parfois que la violence physique je ne légitime pas euh, ou bien je ne fais pas la promotion de la violence est-ce physique. que l'attitude de vos députés dégg nga la wax ma que mënoon nañ ko éviter mënoon nañ ko éviter bien sûr mais li ma bëgg wax moo di avant ñuy attaquer les conséquences nañu xool déjà les causes lan moo andi li tax loolu am et le jour J même Massata ba muy yéeg di wax dafa doon wax le président de l'Assemblée nationale attiré ci attention ne ko appliquer ce pouvoir de police faalewu ko tontuwu ko elle l'a insulté mu gis boppam il a agi gis nga nit. est-ce que en agissant comme ça ces députés-là méritent d'être à l'Assemblée nationale. cette dame qui insulte est-ce d'être à l'Assemblée nationale xam nga l'histoire des femmes est-ce que ce président de l'Assemblée nationale est-ce qu'il mérite d'être d'être au ah, les partis au pouvoir euh, dañ tàmm di investir certaines personnes investir ñu leen bon Aminata Gniby c'est une femme qui a une base politique qui a une légitimité politique qui est femme d'affaires très dynamique mais parfois dañ leen di jox rôle et elle se complaise surtout les femmes et c'est dommage dans ce rôle-là c'est-à-dire des elles empêchent de tourner en rond on peut empêcher de tourner en rond sans sans sans insulter j'ai entendu le témoignage de beaucoup de députés qui n'ont pas approuvé le comportement euh, des députés du PUR mais qui ont dit que le comportement de la dame était inacceptable et inapproprié euh, dans une institution comme l'Assemblée nationale loolu muy benn mais est-ce que aussi un député sa seule réponse moo war a nekk donner des coups mais à une femme mais non, est-ce que ce député là mérite de continuer à être à l'Assemblée nationale mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure euh, la réponse qu'ils ont apportée à ces insultes kenn du ko légitimer c'est de la violence kenn du def promotion violence mais loolu est-ce que son est-ce que son est bi moo réagir et non le député pourquoi le talibé il nekkul assemblée en tant que talibé. il waaw, est il est, mais, il député parce qu'il représente le peuple. waaw mais est-ce que ce n'est pas le talibé qui a réagi devant l'offense faite à son marabout plutôt que le député du peuple. non c'est-à-dire il faut il faut il faut comprendre une chose la dame qui parlait elle ne parlait pas au président du parti du rassemblement c'est-à-dire moom ci boppam moo génn débat bi génne ko assemblée nationale parce que bu waxul président parti pur Serigne Moustapha la wax Serigne Moustapha c'est un homme c'est un spirituel en même temps président du parti de l'unité du rassemblement moom ba muy wax waxul nag le président du parti de l'unité du rassemblement Serigne Moustapha la waxal en tant que Serigne donc moom génne na sax débat bi assemblée nationale mi ngi ko génne feneen donc moo tax euh, nit ñi aussi euh, faudrait pas que qu'on qu'on qu'on tombe sous sous l'émotion wax na ko sànq Ce qui s'est passé, on aurait dû l'éviter. Et si le président de l'Assemblée nationale avait pris ses responsabilités, c'est pourquoi je dis que c'est le président le plus... L'histoire retiendra que c'est le président de, de, le plus irresponsable de l'histoire politique du Sénégal. Assemblée nationale, ngay toog di seetaan ñuy saaga di xasaate en tant que président de l'Assemblée nationale bougewuloo et le pire le PV il a il a il a travesti le PV il a travesti la vérité c'est extrêmement grave c'est extrêmement grave nit nit rek la mën nekk. yow en tant que may Maïmouna il vous arrive parfois nga poser acte yoo xam ne ni boo demee ba bii sa biir nekk dinga ne mais lii est-ce que man la nit xamul boppam di nga toll ci ci ci ci ci situation yoo xam ne nii poser acte boo xam ne nii da ko regretter ne lii est-ce que man la mais boobu le plus souvent nit moo la poussé ba nga yegg foofu xëy na nit kooku la poussé ba nga yegg foofu su la poussé woon doo fa yegg donc moo tax. su ñu jëlee curseur bi teg ko ci ñoom li ñu def te fàttekee li li tax ñoom ñu def ko je pense que euh, euh l'analyse ne pas assez euh, complète elle est parfois partielle partielle et partielle moo tax ma jàpp ni su fekkee ne nga ñu xëy na seen place ci ni ñu doxalee jàpp nga ne xëy na sax du mais seen place Assemblée nationale la Massata il a été il a gagné tous les concurrents qui étaient là-bas au niveau du département. C'est le département de Tuaon Nyoko porté, il a cette légitimité. Pourquoi il doit quitter l'Assemblée nationale Parce que c'est Mais incident, oui. Euh, incident, mais ce n'est pas un incident mineur. mais est que di nga gis ce qui se passe dans les assemblées nationales des autres pays. d'accord mais. dañu ñu jël jigéen yenu ko dóor ci suuf. waaw kenn du ko rafetlu jël chaise yëkkati dóor loolu du suñu góor buy dóor jigéen Sénégal c'est mais góor buy dóor jigéen fépp c'est pas acceptable. te bu dee jigéen voilà fépp c'est pas acceptable te bu dee jigéen en politique toutes les femmes politiques devraient se sentir visées et concernées. moi je pense Maïmouna euh, war nga dugal ci sa xeex. j'ai cru comprendre que cette affaire vraiment affecté mais war na bokk ci li la affecté moo di la la la la la le fait ñu jël jigéen ñi. la chosification de la femme. naa ko wax sànq. c'est ce qui s'est passé là-bas. je je suis comment peut-on accepter jigéen fi ko sunu borom teg ci cër ak rôle bi muy joué ci société bi jigéen mooy mbaaru société bi moom moo téye société bi jigéen boobu la Macky Sall avec sa coalition jël leen def leen des chairs ak ano ne leen yéen seen cër amuleen bu leen ut xam bu leen ut jikko bu rafet bu leen mel nenn ni. li ñu leen di laaj li ñuy sant ci yéen mooy boo leen toogee toog leen ci kanam ku wax ngeen tàcc ko ku ànd ak yéen wax ngeen tàcc ko ku ànd bokk ci kujj kujj ki buur lu mu wax ngeen saaga ko. loolu c'est pas c'est pas seulement propre loolu war na bokk ci sa combat c'est pas te beneen bi mu ñëw ci c'est pas seulement propre le même sens même rek xaaral ma jox la un exemple sous le régime de Abdoulaye Wade foofu laa mën a wax parce que fekkee naa ko Abdou Diouf je n'ai aucun souvenir de ça y a eu des députés femmes dañ leen organiser woon. la dame Ndeye Fatou toure nga xam ne à l'époque l'Assemblée nationale bariwul woon opposant dañoo boycotté woon élection l'opposition dafa boycotté woon élection bi dañoo attaqué femme bi attaqué femme bi des attaques au voilà très tellement basse et tellement vilaine que finalement Ndeye Fatou Touré gëwuma ndax mu amoon envie dellu siwaat à l'Assemblée nationale c'était des femmes loolu rek ku wax ñu yuuxu la ku wax ñu kii en fait li ko indi bokk na ci la parité dañuy indi ay jigéen assemblée nationale du ñu am benn niveau bi du ñu xam politique elles doivent être là elles sont là après tamit ñu porter loo leen rôle boobu et et c'est une chose boo xam ne ñun yàgg nañ ko condamner la femme n'est pas à l'Assemblée nationale pour insulter pour tàccu wala pour doxantu di daagu di wane sa wang je suis désolé de le dire. <laughs> ça man et ça je et, et ça je l'ai je l'ai et c'est dommage. c'est pas non et c'est dommage. et et bi mooy. Ah. beneen bi mooy pour wax la c'est qu'en fait c'est vraiment à la fois rigolo euh, et, et ce qui est bien dommage au Sénégal moom laa doon wax sànq li Pape Malick Sy wax c'est tellement vrai que euh, mais Mame Diarra Fam lors de la dernière mandature qu'est-ce qui s'est passé elle a été tabassée est-ce que journalistes yi dégg nañu wax ci Mame Diarra Mame Diarra Fam du Parti démocratique sénégalais door nañ ko kan moo ci wax et c'est-à-dire euh, nit ñi li ñu war a wax duñ ko wax dañuy jël curseur bi teg ko foo xam ne nii xëy na pour jéem a acculer nit ñi. mais quand on présente mais Macky Sall bi comme étant une femme enceinte tabassée par deux hommes je pense que loolu moo graawal affaire